jabbar cikin jajib dai sama gayi sama gayi har gayi kuti har gayi har gayi Mr. Shekler, Mr. Shekler. Brooklyn New York gars yi ngeen baal ma tey day Kira très bien lagi like tey ci benn tente laa nekk parce day taw quoi jaajëf ah. daal tey yaay champion bi moom wax nga dëgg waaw waaw gars yi ñëw leen tey actualité bi dafa neex tey li ñu mën a discuter moo bëri Sénégal mi ngi waaj a tas billahi barki rasulullah jaajëf taf taf from Germany how you doing my friend how is Germany man ñëw leen ñu wax ci Sénégal ñëw leen ñu wax ci Sénégal Kira ñëw leen ñu wax sa mbokk alxalpulaar yi kira sembok hal pelari ini ñu kaju atake di ma atake wala kira mooy first apa kamu kan first yéen ñaar de mais gars yi leen sama yaram dafa tàng j'espère que son bi na nu ah man nee naa live rek dëkk bi day commencé am na gis ngeen temps yi dëkk bi dafa yëngatu sëriñ yaa ngi jëfu wax wax yu doy waar billaahi barke rasulallah sëriñ ñu ñu génn di wax wax yu doy waar sëriñu canaba sëriñu canaba canaba bi nee na dëkk bi duñ ko jox duñ ko jox euh, xale ndax buñ ko joxee xale yi dëkk bi day yàqu ay waay paa yi paa ñu bëgg paa yi lañ bëgg dëkk bi duñ ko jox xale kan mooy xale sonko sonko mooy xale billaahi Sénégal buñ ci waxul dañuy sanku man de jël naa décision man moom amatuma lu may ragal amatuma lu may ragal jël naa décision jaajëf euh, Aliou pour jéem yee askan bi alpulaar yi ñu may attaqué di ma wax bàyyi alpulaar bu bàyyi alpulaar parce que alpulaar yi seen bopp ñoo njëkk génn di gis ngeen Kurosoo lu mu def Fatoumata Tampi dañ ko invité ba leeral toroxal ko ne ko da ngaa trahir waa Fouta Tamp mu gedd plateau bi génn dem kon Haalpulaar yi seen bopp ñoom ñoo njëkk xam ne Macky Sall du président bu baax ñoo ko njëkk xam parce que Haalpulaar yi bu ñu demee bay bay ñaawlu li Macky Sall def jël xaalis jox ko Fatoumata Fouta Tamp Kouro ko ko xoolee xam ne Haalpulaar 100 pour cent la leeral kay bu ñu koy mooy télé Macky Sall leeral non je suis je suis plus parce que man li may gis nii duñ ko nangu duñ nangu mu sëriñ yi di def lu leen neex ñu toog du toog sëriñ yi di di def lu leen neex di wax naan dëkk bi duñ ko jox xale kan mooy xale Ousmane Sonko mooy xale gaan mooy war di ñaan kay ci yàmba sax ba tey gaan man gars yi bu ma gisee dañuy yaakaar damay ñaan yàmba borom sol bu la loolu borom t-shirt bu bleu borom chemise bi di ñëw pour am mu laaj la ndax am nga këyitu yàmba man du ma fas est ce que yéen a may dégg sëriñu canaba bi neena ya yaa jox nogee sëriñu canaba bi neena na dëkk bi duñ ko jox xalé ba pare muy mu ne Macky Sall dal lay jappal Macky Sall dafa war tabax ñaari juma foofu waye neena na Macky dafa ne ko suma tabaxé fi juma kon ñeneen ni dañ may laaj juma mais paa yi paa yi ku ñu yab kan la ñu yab ah ñoom ñoo ñuy wax kan moo war a nekk président ku ñu nekk président yow yaa yow seen caraba bi ñu ngi gaañu yow yaa ngi doog a jël nguur gi yaa ngi doog jël nguur nguur gi ci ci ci ci caraba ah. kii nee na damaa ndurul Amérique gars ñu ma rek mi ngi may gis nii ñeme wu ñu ma rek xam nga suñu caraba bi nee Macky Sall. dëkk bi duñ ko jox xale Guy Marius Sagna ñu jàpp ko defeere ko patam patamee ko xoolal Guy Marius Sagna Vélingara lañ ko jàppee yóbbu ko Kédougou jële ko ko Kédougou yóbbu ko Kaffrine jaarale ko Fatick doog ko yóbbu Dakar ba pare ñu ngi nii ba léegi demul kër bi xanaa Guy Marius Sagna rek mooy góor Sénégal xanaa Guy Marius Sagna rek mooy activiste Sénégal ana Assome Diouf ana Clédor mi may tagg chaque jour di wax ne moom ak Guy Marius Sagna ñoo fi nar a joxe seen bakkan ana Clédor ana waa waa FRAPP ana waaw bu may wax Guy Marius rek ak ak parce que gii buy dem day ànd ak ay nit ana ñoo lànk wala léegi ñoo lànk dañoo nangu gars laaj leen partagé leen ñun tamit laaj leen partagé leen man bu ma nekk jël ay risques ah bàyyi samay activité yëpp temps yi talu doxantu talutuma def dara ñoom daan ñi ay tapet lañu daan maag yooyu foog ñu dellu Sénégal ñu libéré pays dëkk bi parce que ñi ay ñi ay tapet lañu ah ay tapet lañu ñemewuñu dee pour seen réew Macky Sall pour mu jóge fi il faut que am ay dee il faut qu'il y ait des morts parce que Macky Sall nii ma gis muy dem ci sëriñ yi sëriñ yi di ko plébiscité ñu gis nee naa leen Aïda Mbodj wóoluma Aïda Mbodj xam nga yàgg naa leen wax wóoluma kan moo ko jaale tey sëñ Bass Abdou Khadre ci boppam moo déplacé wu dem jaale ay dugub la gars yi loolu sëñ Bas Abdoul yaay Ayda Mbow ba mu gaañoo kañ la yaay Ayda yaa ngi ko yàlla ne yéen ba mu gaañoo kañ la sëñ Bas Abdoul Khadre ci boppam ñoo déplacé wu dem jaale ay dugub léegi ku mel noonu bu la waxee ëllëg si mbuur waxal Sonko mu arrêté doo wax Sonko mu arrêté gars laaj leen partagé leen boo leen bëggee ñu gën a parce que YouTube bu gisee ngeen laaj partagé da dafay gën a recommandé. temps yi gis naa ni ngeen di seetaan su may laaj waaw parce que man ni may defee laaj kenn du ko defee laaj man aw ma lu may ragal ñun suñu xale yi kenn du ko sacrifier fii wallahi taala daan Diop amul Sonko amul kenn kenn du suñu booy seen i diil yi ngeen di def ñun suñu doon nekku ci parce que Sonko Sonko procès bi xamuñu ndax dañ koy def wala duñ ko def pour man procès bi kenn du ko def procès aji saak loolu yëpp ay diil la loolu yëpp ay diil la Serigne Mountakha bu nangoo Sonko ne ko xolal yow tribunal kenn du la woo bul wax dara tribunal kenn du la woo waaye waaye waaye bugguma nga def marche bugguma nga def lii bugguma nga def laa toogal rek lu muy ah waaw dafa war a génn Sonko bu génnul kenn du génn Sonko bu génnul kenn du génn xale yi duñu génn xale Sonko suñu dernier espoir seen Mountakha loolu la xam Macky Sall lool la xam kon Macky Sall bu mënee jël ay milliards mu joxe ko pour ñu tënk Sonko dina ko def fan la koy jaar ci ñu wër Sonko ay dem moo dafa wër Sonko kan moo wër ci Sonko Khalifa Sall la moo tax Macky dem jaale bi Khalifa Sall kan moo wër Sonko Barthélemy Dias Barthélemy Dias fan la nekk papam mi ngi ci nguur gi ak kan ak kan moo wër ci Sonko ay ñoom Malick Gakou Macky Sall seen xaalis la la leen Macky Sall temps yi dafa mel ne dafa kontaan parce que dafa mel ne dafa neutraliser Sonko loo tax xel bi dal na mu ngi dem ay Éthiopie mu ngi dem ay Amérique dafa Macky Sall dafa mel ne dafa am ay garantie yu leer que ni Sonko dootul def dara fii ba 2024 Macky Sall dafa mel ne dañ ko jox ay garantie léegi nag comme Sonko maîtriser nañ ko ñu ne nag activiste yi nga xam ne ñoo ñuy lakkal xaaral ñu profité si paagaagal leen surtout nag Guy Marius Sagna bi ñu seetaan ñu tëj Guy Marius gis nga kilifa dañ koy bàyyi par force gis na Simon dañ koy bàyyi force billahi wallahi taalahi duñu setan ñu leen di tëj xam naa ne dañ leen di bàyyi dañuy sóob rek dañuy sóob gisal Moustapha Diakhaté génn di wax naan Simon ak ak si ak kilifa kenn waru leen japp parce que ni ñu leen jàppee baaxul parce que parce que ni ñu leen jàppee parce que euh vidéo bi ni ñu ko amé baaxul déggu leen wax ko Moustapha Diakhaté dañ ko yónni Moustapha Diakhaté dañ ko yónni parce que nous sommes Sonko Guy Marius Sagna nous qui nous parce que les données personnelles sont publiées. Qui ne publier Qui données personnelles Wa waa leeral nous qui Nous libéré waxuma ne mais les nous du personnes trois mille personnes prison ñu leen di torturer mais c'est pas sérieux Sénégal Maintenant, vous voyez, le 5 bi, le le le Simon ak qui war faut dem un

man kan laa fi wax chaque jour Abdoulaye Daouda Diallo pël la Abdoulaye Sow pël la Abdoulaye Daouda Diallo xaalis Abdoulaye Sow mooy urbaniste Matar Ba lan la xam xamul gat dégg naa professeur éducation physique la woon ñu jox ko ministre sport Amadou Ba Halpulaar ñu joxal ko xaalis ba pare jox ko ak affaire étrangère Aïssata Tall affaire étrangère Malick Sall tukulóor 100 pour cent xool leen ko Malick Sall pas bu mën a doser max boobu lan la xam mam booy jaw pulaar eh, Racine Talla pulaar mooy magu magu fuumalaat fuumalaat nan la nan la mën a nekk activiste magam nekk ci ci gouvernement bi gars yi laaj leen partagé li am Sénégal dafa ëpp ba ko ñu ne kenn du wax ñu ne kenn du wax dëmm yi jaam yu bon yi yéen ay criminel di làqatu sëriñ ñun dañoo faale sëriñ ñun sëñ Touba mbàkki mbàkki yi moomuñu sëriñ Touba billahi wallahi taalaay sëriñ yi dañu ànd ak ñoom nii rek mais sëñ Touba kenn moomu ko sëñ Modou Kara ëppale wu ma ci sëriñ Touba. billahi wallahi taala ëppale wu ma ci sëriñ Modou Kara ëppale wu ma amul benn sëñ Abdou Bass Abdou Khadre ëpp ma ëppale wu ma ci sëriñ Touba sëriñ Touba dafa international moomu leen sëriñ Touba ñun on n'a pas besoin intermédiaire nag bu ñu ñëwee jébbalu ci yéen di def ay màggal Touba ngeen jël Macky Sall bu ko teg suñu kaw. kenn du marche Touba kenn du génn sol morceau bu xonq d'accord kenn du politique ba pare ngeen bàyyi Macky Sall ñëw di politique naan liste Benno Bokk Yaakaar moo nekk Touba seen Touba kenn moomu ko dafa international dafa mel ne yonent bi rek est-ce que surtout yonent bi mooy ñu nekk Arabie Saoudite est que ñoo leen ëppale ci yonent bi sëñ Touba bu muy liggéey liggéeyal pour doomam ay doomam wala pour ay sëtam sëriñu canaba ji seen sëriñ seen sëriñ ëppalewu leen ci sëñ Babacar si ëppaleewu loolu ci El Hadj Malick si moomu leen El Hadj Malick si moomu leen sëñ Touba ñun dañ leen jox cër billaahi wallaahi taalaahi boo leen yaakaaree ni Sénégal bi amoon moo am ba léegi que xale yi dañ leen di topp sacrifier seen jeunesse ngir tubaab yi ñëw total ñëw di yóbbu àddee seen seen bas Abdou Khadre naan def nañ fi juróom-ñaar fukki at dañ fi ñëwaat pour nga ñaanal yi ñu defaat fi yeneen juróom-ñaari at ba pare nga ñaan li amoon 8 mars bañ a am sëñ Bass Abdou Khadre la ñu dem tubaab yi di dem di jébbul nga gis nga xam ne ay sobe rek lañu doomu xaraam yi nga xam ne ñun def ci 300 ans xaw ma 500 ans jaay ñu jaay suñu réew dëmm yi di ñu dàq seen réew suñu xale yi di dee ci géej gi ñooñu ñooñu di dem ci sëriñ sëriñ yi di dem di jaale ji ay ay ay sëñ Bass Abdou Khadre de def mais li mu def Mamour Diallo li mu def Touba li de moom defal ko sax ko baaram te Mamour Diallo yaayam gaañu na ko maamam gaañu te Bass Abdou Khadre déplacé wu sëñ Mountakha nee na Mamour Diallo la sëñ Mountakha doom la def Mamour Diallo doom ay nit ay ndaw lu tax ñu ngi leen yónnee ndaw mu dem jaale ji Aïda Mbodj Aïda Mbodj mooy kan nee naa leen Aïda Mbodj wóolu ma ko système bii bi man Mister Shake lu ma leen wax rek déglu leen saa yi Mister Shake man li may analyser kenn du ko analyser ay Madické Niang lan moo tax mu ñëw ne rëkk Sëñ Tuubaa Madické Niang lan moo tax mu ñëw rëkk Sëñ Tuubaa ñooñu ay conseil lañu ay conseil politique Madické Niang kan moo ko xam-xam ci politique. parce que Abdoulaye Wade dafa fondé te la lan moo tax mu ñëw nag ne ne rek bàyyi naa politique bàyyi naa lépp léegi conseiller lañ ko def ñoom ñooy wax suñ mu taxaa tubaab yi nii dafa gisoo bari ka ñaan génn benn communiqué di gërëm tubaab yi naan tubaab yi ñu tubaab yu baax lañu gars yi laaj leen partage nan laa amee 131 personnes am 26 laaj rek mais bés laaj yomb na partagé yomb na man message bi may def nii dafa baax li may wax kenn ñemewu ko wax man xam naa ne bu ma ñëwee Sénégal dañ may rey mën na am sax fii lañ may reyee parce que j'ai décidé d'être radical amatuma lu may daw amatuma lu may yox yoxi Guy Marius Sagna du gën a gore billahi wallahi taala du mu gën a gore mais nii ñoom ñi ñoom ñoom moom pël pël pël bon yooyu du pël yëpp a bon de jiraa ngi nii bu baax la Curaçao bi bi bi toroxal Fatoumata Fofana pël bu baax la gis nga Cheikh Anne

dinañ ko bàyyi parce que fu mu nekk Fouta dañoo mer Fouta bëgguñu ñu jàpp seen bopp surtout yow ñi nga xam ne ñu ñun ñoo leen doon voté Mamadou Sarr li ñuy jàpp xeexal na Macky Sall lu ne defal